mbokk yi di leen gërëm di leen sant si li ngeen di déglu seen podcast yeewu alors gisoon nañ ni bitcoin ñeent affaire la bitcoin benn philosophie la bitcoin benn réseau peer to peer la bitcoin benn protocole la mooy benn déggoo bitcoin benn cryptomonnaie la philosophie bi moo jur réseau peer to peer bi mi nga xam ni ci biir da nga am un ensemble de nga xam ni ñëpp moom la ñuy d'accord mooy déggoo bi. ensemble de règles yooyu noonu ñooy définir ku nekk lan la am kañ la ko am ba pare ku nekk di mën a yónnante ay token yu ñuy woowee tey cryptomonnaie gisoon nañ tamit si si benn si épisode yi ñu enregistré woon que réseau peer to boobu noonu mooy permettre lu ñu woowee décentralisation et si biir réseau peer to peer bi nœuds yi dañuy jokkoo à travers des messages dañuy jowante tout le temps dañuy yónnante ay information tout le temps loolu moo tax ñuy d'accord loolu moo tax ñuy mën a vérifier à temps information transaction yi mais gisoon nañ ni tamit que nœud yi dañoo wute amoon na ay full node ay SPV ay mining node ay solo miner ay pool de minage tey dañoo ñëw gis ak yéen lu ñuy woowee full node. alors dañuy tàmbalee début bi déjà pour am full node il faut nga am benn client. ba nga xam ni il est capable dugg ci réseau bitcoin bi ñun client bi ñuy privilégié bi ñuy conseiller mooy bitcoin core ñu ngi doon explique que pour installer ko da ngay dem ci site webu bitcoin core project bi wala nga dem GitHub si code source bi nga installé ko nga désarchiver nga build ko voilà benn process quoi bu simple à la fin mais pour ñi nga xam ni ils prennent le temps da lay gëstu soo xasee ba. build wala ba installer Bitcoin Core li muy njëkk def mooy li ñuy woowee initial blockchain download mooy maanaam dafay jéem a retrouver télécharger ci réseau bi à partir de réseau bi tous les blocs qui ont été créés depuis Genesis block bu Satoshi Nakamoto en donc pour loolu day laaj information yeneen nœud yi Genesis block bi jusqu'à aujourd'hui pour que télécharger ko donc nga def indi IBD boobu noonu ça peut prendre des semaines voire des mois cela dépend de plusieurs facteurs premier facteur bi mooy puissance su sa machine deuxième facteur bi mooy sa qualité connexion internet loolu donc ça dépend quoi fi nga nekk ça dépend si matériel bi nga yor mais tamit am nga beneen option au lieu nga naan da ngay télécharger toute la blockchain depuis la création du réseau Bitcoin mën nga def benn option bu ñuy wax prunit donc nga sa nœud au final boobaa du nekk full node mais dama leen koy jox comme exemple prunit node ça te permet de télécharger environ un dixième des blocs donc au lieu yow euh, sa nœud di peser au niveau de ton disque dur trois cent et quelques gigas ça va être ay trente gigas mais loolu mooy déjà premier étape bi installé client Bitcoin Core man moom laa leen di conseiller et def lu ñuy woowee initial blockchain download instant boobu nag su paree ci leen di passé si deuxième étape bi. à partir de là mën nañu wax di intégrer ngeen réseau Bitcoin bi maintenant étape bi si topp c'est important. avant ñu passer étape yooyu noonu on va se poser des questions lan moo tax ñu naan full node parce que déjà c'est benn client bi nga xam ni dafay stocker ensemble transaction yu mës a am ci réseau Bitcoin depuis sa création donc mën nañu wax ni seen un registre distribué donc loolu mooy si avantage bi deuxième mooy que seen full node ça vous permet de gérer seeni calpe mën ngeen créer benn calpe mën ngeen créer une multitude de calpe donc mën na nekk seen propre banque troisième bi mooy mën ngeen di envoyer di yónnee bitcoin sans passer par un intermédiaire donc au final notion de décentralisation boobu noonu fii la gën a am importance maanaam ça vous permet ngeen bañ a jaar ci circuit traditionnel u banque yi wala ci circuit traditionnel de ay Western Union MoneyGram Ria et cetera soo leen buggee yónnee kenn koo xam ne dafa yor nœud bitcoin am dañ ko yónnee directement sans jaar ci kenn. donc full node yi c'est un validateur maanaam seen nœud day valider les transactions que ce soit yéen seeni propre transaction ngeen di yónnee wala ngeen di recevoir mais aussi day valider transaction wu ñeneen ñi full node yi tamit dañuy valider bloc yi pas valider dans le sens où ñoom ñooy tax ñoom ñooy tax bloc yi la ñuy wax légal mais ñoom. saa yu ko benn mineur validé dañ koy validé ñoom tamit parce que dañ siy jot ñu vérifier waat encore que effectivement mineur bi def na liggéeyam et enfin fournodi ce sont des diffuseurs une fois ñoom ñu valider transaction yi wala bloc yi dañ koy jàllale ci ñeneen yi donc loolu moo tax il important nit yi am full léegi nag au delà de li ñu leen wax nii yëpp. lan mooy réellement avantage tamit am full node mën nañ ko séparer en quatre catégories avantages sociaux avantage économique avantage liés au consensus et avantage cryptographiques avantage social pourquoi parce que soo xasee ba am sa full node da ngay intégrer benn réseau donc yow da ngay contribuer à renforcer réseau boobu noonu mais aussi tu la possibilité de donner ton avis entre guillemets maanaam suba su développeur yi bëgg a forcer benn mise à jour boo xam ne arrangé wul utilisateur yi tu la possibilité pour wane sa désaccord nga désinstaller sa nœud wala nga bañ a def mise à jour boobu ñoom bi ñu bëgg a def. aussi bul fàtte ni yow da ngay bokk si ñi nga xam ne dañuy valider transaction wu ñeneen ñi yónnee ak jotu ñeneen ñi. que da ngay yëg tamit li nekk si réseau bi et que en validant yow da nga koy jàllale ñeneen ñi. donc loolu lépp c'est important pour que benn réseau peer to peer dox il faut que avantage sociaux yi important il faut que interaction sociale yi important entre nœuds yi parce que ici il s'agit de nœuds au-delà de nit parce que encore une fois objectif u genre solution yi mooy préserver la vie des gens deuxième avantage mooy avantage économique loolu dafa important parce que au final da ngay protéger lu ñuy woowee sa souveraineté financière maanaam yow yaay gàddeel sa xaalis sa bopp yow yaa koy sécuriser sa bopp doo jaar si keneen koo xam ni dalay jël ay frais pour mun la ko gàddeel bitcoin benn instant ngay fay frais mooy soo buggee yónnee te loolu tamit beneen avantage économique la mooy yow yaay tànn ñaata frais ngay fay donc y a un minimum y a un maximum maximum bi ça te permet sa transaction gaaw minimum bi su fekkee yàkkamti woo tu as la possibilité nga choisir ko te tôt ou tard dina jàll donc loolu mooy deuxième bi te troisième bi mooy yaay sa propre banque yaay sa propre banque et c'est vraiment hyper important troisième avantage bi da am benn full node c'est lié au consensus maanaam réseau peer to peer boo gis dafa am ay danger ay attaques si danger yooyu noonu dafa bokk si lu ñuy woowee ay nœud fantôme donc yow en ayant benn full node ci ferais partie des nœuds honnêtes pour contrer lu ñuy woowee cyber attacks donc je vous laisse un peu ngeen gëstu si cyber attacks yi et comment Bitcoin Core e comment am benn full node mën na ko xeex mais aussi yow da ngay maintenir ba pare da ngay valider blockchain bi maanaam ak sa full node étant donné que tu valides les transactions étant donné que mineurs yi suñu valider benn bloc dañu la koy yónnee yow tamit nga xool nga vérifier nga valider nga yónnee ko keneen da ngay bokk ci ñi nga xam ne ñooy maintenir blockchain bi de telle sort que suba su fekkee dafa am kenn ku ñëw bëgg a créer benn propre full node mu xool autour de lui gis ni yow sa nœud il est à côté il est capable suy def initial blockchain download boobu noonu mu jël information bi si yow donc c'est hyper important enfin avantage cryptographique maanaam. nit ki moom mooy yor clé privée au final suñ la nee da nga am bitcoin c'est pas da nga posséder ay bitcoin c'est danga nga posséder benn caabi buy permettre débloquer ay bitcoin donc caabi boobu noonu mooy sa clé privée cryptographique parce que nit ku nekk mën na générer plusieurs adresses donc nit ku nekk mën na am plusieurs identités derrière réseau bii nii et loolu tamit dafa am solo donc pour résumer am full node lu am solo la su fekkee da ngaa bëgg a bokk ci réseau bitcoin bi su fekkee dangaa ngaa bëgg a maintenir euh, sécurité wu consensus bi daf si am solo su fekkee da ngaa bëgg a nekk sa propre banque daf ci am solo su fekkee da ngay bëgg di yónnee à tes frais yow daf si am solo su fekkee da ngay bëgg di recevoir di yónnee di recevoir sans jaar si benn intermédiaire daf si am solo. su fekkee da nga bëgg a participer à sécuriser réseau bi encore plus daf si am solo donc il n'y a quasiment que des avantages inconvénient bi entre guillemets mais je vais dire barrière bi mooy que déjà il faut des informations nit yi mën see jot ñun si loolu la ñuy liggéey deuxième barrière bi mooy il faut que nga am benn connection internet bu assez stable wala boo nga am juste patience parce que comme li ñu leen ko waxee woon. initial blockchain download bi sa peut prendre quelques jours comme ça peut prendre plusieurs semaines donc patience la nit yi laaj ak gëstu bu baax a baax a baax a baax mais soo leen doon comparer avantage ak inconvénients yi avantage yi l'emporte très très très largement et full node enfin daf leen war a permettre ngeen éviter exchange yi ak portefeuille virtuel yi nga xam ni moom ngeen di télécharger ci seeni app store wala ci seeni play store donc gëstu leen jéem leen ko installé leen yomb na gaaw na jërëjëf